asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan di ju suivre ci wasaare làmb ñu ngi leen di jaajëfal bu baax leen nuyu euh, di jéggalu nag ci gëj gise bi mais bu ngeen gisee tey ñu ñëw rek am na loo xamante ne ni xew na rawatina ci wàllu làmb euh, tey nag dañuy ñëw ak naqar ñëw ak dénoncer loo xamante ne nii euh, ñaanu ñoon yàlla mu dal ci kenn rawatina nag ci axlu làmb Euh, le ministre de la justice ñu gën koo xam ci Malick Sall maître Malick Sall fële ca France 24 dañu ko dalal ci manifestation yi nga xam ne am na ci réew mi ak yàqu-yàqu yu bari yi nga xam ne am na fi ci biir loolu nag ca la joxe xalaatam la mu joxe mooy mboolem yàqu-yàqu yu fi am saccage yi ñu fi def ay mbër la yoo xamante ne nii yàgg nañ leen a tëj bëriwuñu amaluñu benn activité sportive loolee nag moo waral ñu daw fippu génn fasal seenum naqar fasal seenum mer ba yàqu-yàqu yu bari yooyu yëpp am muy ay kàddu nag yu ñuy naqarlu ay kàddu yi ñuy ñaawlu li waral ñun ñu koy njëkk a ñaawlu mooy ñun ay acteuru làmb lañu acteuru làmb nag san ne veut pas dire nekk mbër wala nekk manager wala nekk euh, promoteur wala nekk tey amateur mais ñun ñi nga xamante ne nii dañoo yor seen muy activé wu uniquement ci la lutte muy wasaare làmb ay acteur lañu acteurs yoo xamante ni bu ñu gisee lu rafet ci làmb war nañu koo fësal ba àdduna bi yëpp teg ci seen bët bu ñu gisee lu ñaaw ci làmb aussi war nañu ko dindi bu fekkee ne tuuma la war nañ koo teel a dindi ba mu set wecc ba àdduna bi yëpp xam ne lii ay tuuma la. loolee nag mbokk yi ay tuuma la ñu ko jàppee ñun ci suñu xam-xam bu gàtt parce que li tax ñu jàppee ko ay tuuma mooy manifestation yi mboolem ku nekk ci biir réew mi gis nga ni mu demee gis nga ni mu déroulé woo te gis nga ban masse moom moo ci muy ay xale yu ndaw. ay xale yoo xamante ne nii kenn xamul lan moo leen naqari euh, li waraloon euh, manifestation yi ñun ñëpp xam nañu ko duñ ci dellu mais aussi yàqu-yàqu yi nga xam ne nii am na ci mënuñ mën nañ koo interpréter nu ne ba mu des ñu jékki-jékki rek féetale ko benn barab ne waa axlu làmb la wala waa diw la wala waa diw parce que euh, instant bii ñuy waxee ak yéen amul kenn ku mën a ñëw ne diw moom moo amaloon yàqu-yàqu yi te nangam moo tax mu amal ko rawatina nag ministre de la justice nga xam ne tey mën nañ ne moom mooy seetu seetu justice su réew mi ministre de la justice tey bu demee ba yëkkati yenn kàddu yi yenn tuuma yi teg ko ci benn maas même bu nekkutoon làmb sax ñun war nañoo tiit ci suñu justice su réew li tax ñuy tiit ci suñu justice su réew mooy fi ñu ko doon xaar mooy tey bu ñu ubbi woon enquête ba enquête boobu dem ba ñu gis ne kat ay mbër ñoom ñoo amal yàqu-yàqu yi bu ko waxee bu boobaa danañ ko ko nangul mais en tant que ministre de la justice nga xam ne tey ku wax justice moom ngay njëkk a tudd bu yëkkatee yenn tuuma yoo xamante ne nii teg na ko ci benn maas te tuuma yooyu amul lenn lu ko mën a firndeel ñun danañ tiit ci suñu justice su réew rawatina nag fi mu ko féetalee parce que ci ay gor la ko jëmale ci ay responsable la ko jëmale ci ay kilifa la ko jëmale ci ay boromi kër la ko jëmale ndax làmb tey lépp lu ci nekk ak li ciy gravité mën nañ ne ay kilifa képp ñoo ci nekk li ko dale ci mbër yi li ko dale ci promoteurs yi li ko dale ci amateurs yi li ko dale ci managers yi li ko dale ci euh, association lutteurs en activité yi lutteurs euh, euh, ñi nga xamante ne ni ay mbër lañu te dem en retraite ba ci ñi nga xam ne ay président d'écurie lañ foofu ay responsabilité kese lañu fa gis ay responsable kese lañu fa gis ay père de famille lañu fa gis ay nit ñu xam li ñu bëgg lañu fa gis ay sportif aussi moom lañu fa gis parce que daaw ba ren li leen naqari am na neneen nunu ko jooyee gis nañ fi ñu bari nag ci jooyin yu wute bu ñu mënee citer rek tey artistes yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum woy eh, gis nañ géwél yi bi ñu amee lu leen naqari def nañ seen marche fële ca wetu arène nationale. mais amul benn mbër buñ bu ngeen mës a gis ñu leen amal nañu marche parce que dañoo am lu leen naqari ci réew mi ndax boobu ba léegi ñu ngi leen tëj li ñu def mooy li leen li li leen ñëpp doon xaare parce que ay porteurs de voix lañ ñu amal ay conférence de presse fësal seenum naqar ñaan nguur gi pour ñu fexe ba ubbi arène bi ba ñoom ñu bëri ji te ba ñu ko defee ba léegi ci lanu yem mais amul benn mbër boo xamante ne ni tey yëkkati nga xeer dem di yàq amul menn mbër moo xam ne ni tey dem nga di piller euh, ay butigu jàmbur ñun boog li ñu gis parce que ci terrain bi la ñu nekkoon ci terrain bi la ñu nekkoon ak ñoom gis nañ manifes manifestation yi ni mu déroulé gis nañ ni mu jeexe mais très franchement mënuñoo gis benn yoon wala mënuñoo jël benn yoon ay tuuma di ko teg ci kaw làmb naan waa làmb ñoom ñoo doon amal yàqu-yàqu yooyu te ñun ñu nekk ay témoins oculaires nekk ci biir terrain bi gis li xew àndandoo ak manifestants yi di di ko di ko couvrir di début à la fin tuuma yooyu bu ñu ko déggee rek li ñuy njëkk a def mooy dañuy tiit li ñuy tiital mooy kan moom moo yëkkati accusation yooyu ak ñan ñan la ko teg ki ko yëkkati nekkutoon yoon mu yëkkati tuuma yu mel noon di ko teg kii que ce soit euh, ci réew mi te amu ñu ci ay preuves yu palpable ñan la ko teg axlu làmb ñi nga xam ne nii depuis ñu tëj leen ba léegi nii am nañ lu leen naqari mais kenn déggul ñu wax wax ju ñaaw wala ñu jëf-jëf ju ñaaw donc loolu nag day bokk ci ay naqar yoo xam ne ñun dañ koy naqarlu rawatina nag ci scène bi nga xam ne fa la ñu ko defee muy France 24 nga xam ne opinion internationale bi yëpp dañuy suivre scène bi donc bu ñu déggee loolu dañuy gis ne ah voilà Sénégal kat ay mbër ñoom ñoo jóg pour yàq réew ma ay mbër ñoom ñoo jóg pour jaxase réew ma euh, bu boobaa ñu suñu sport bi day nasax day deltuwaat ginnaaw ak effort yi nga xam ne nii def nañ ci lu ay at yu baree baree bare donc loolu moo nekk naqar bi nga xamante nii ñun tey moom moo ñu dal dal képp ku nekk ci làmb parce que waxoon naa ko làmb ni mu structuré woo amul benn sport ci réew mi bu ni mel tey boo xoolee li ko jëlee ci kaw ba ci suuf fépp foo dem rek da nga fay fekk kuréel gu dëgër koo xam ne nii am na nu ñu ko structuré am na ku ko jiite te it ci lenn rek la ñuy dox mooy lu jëmale làmb kanam boo demee ci amateurs yi am nañu association des amateurs boo demee ci mbër yi am nañu association des lutteurs en boo demee ci ñi nga xam ne bëri nañ ba bàyyi am nañu association des euh, des sages am nañu association des anciens gloires boo demee ci promoteurs yi la même chose am na association des promoteurs nga dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy président écurie yi am nañ association des responsables d'école et écurie de lite donc fépp foo mën di laal rek ci làmb da ngay gis ni dañoo associé wu booloo doon benn te kuréel yooyu tey li ñuy firndeel mooy ñii dañuy dox ci luy jëmale làmb kanam moo waral ñu booloo nekk benn amul fenn fu nit mën a porox ndooloo ba mën a yàq làmb te doo jaar ci structure yooyu te une fois que nga jaar ci structure yooyu bala nga agsi ci làmb danañ la freiner donc mu nekk ay kàddu yoo xamante nii ñun ay acteuru làmb naqarlu nañu ko am nañu luñ ci metti bu baax a baax a baax ba moo waral nag ñu bëgg a teggi tuuma teggi tuuma bi mooy ñun ay acteur lañu ci làmb lañu ne tey témoin oculaire lañu aussi gis nañu li nga xamante ni moom moo xew te mën nañ ci épargner làmb parce que làmb laalewu ci benn yoon. donc kon bu ñu jëlee tuuma yooyu di ko teg ci làmb ñun affaire bi dañuy jaaxal donc ñu ngi ñaan nag képp koo xamante ni ci làmb nga bokk. képp koo xamante ni acteuru làmb nga képp koo xam ne ni porte de voix nga te bokk ci làmb rek nga génn Euh, teggi tuuma boobu parce que loolu mooy tax ñu setal suñu der loolu moom mooy tax ñu mën a avancer suñu sport parce que am nay gàllankoor yu baree bare bari yu fi jaar bu ñu bàyyee lii mu jàll rek ëllëg danañu rey làmb ci te te bu boobaa kenn dootu yam benn kàddu boo ci yëkkati donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di jéggalu nag ci kàdd yi bu fekkee ne am na débordement di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci yeneen xew xew làmb jërë ngeen jëf